mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di dajawaat tey ci ab néegam di fas yéene jël lenn ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca mu bokk ci la ca gën a am solo mooy la nga xam ne da ko jàngale ci ay azkar ñu ngi nekkit suñu jeexitalu téere bi di bulughul maram liñ ci desee yàlla mën na def ñaari bind lay doon mu bokkit ci loo xam ni xalaatoon nañ ko mooy am na benn téere bu mag bu sunu maam yi doon jàng fii ci Sénégal ñu koy tuddee al risala bu Abu Zayd al Qayrawani di téere boo xam ne yi ëmb na lu bari ci wàllu pas-pas gannaaw ba mu ëmb lu bari ci wàllu la nga xamee ni nii moom mooy fiq incha allah jàppoon nañu ne suñu paree ci téere bi daañ commencé téere boobu am na lu mu gën a siwe fii charx bi nga xam ne mooy samaru daani loolee di ngay gis ne xatta cantine bi nekk ci buntu jàkka ji sax soo demee mën nga ko jënd foofu ay deux mille francs lay jar loolu ñu jàpp ne incha allah su téere bi passé daañ dal téere boobu bi isnillah ñu ngi nekk ci baabu zikr wa du'a ca mooy bunt bi mujj ci téere bu bi ñu tim jëloon nañ ci ay xadis ba yëgsi ci tey waan abi muusa al ashari boo déggee baabu zikr ak wa dua nga xool moom mooy juróom-ñeenteelu xadis bi boo ko paase fukkeel ba moom mooy an abi muusa al ashari ni ngi noonu bu dee mool bi ma yor mi ngi ci mille cinq cent soixante seize
وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله متفق عليه لا نجته ولا ملجا من الله الا اليه وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة رواه الأربعة وصححه الترمذي وله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وصححه الحاكم وابن حبان وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد اخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره
kon mbokk yi xadis bi ñuy jëkk a jël ci bunt bi mooy xadisu abi muusa al ashari radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة xanaa doo kay ma tegtal la ci benn denc muy trésor benn trésor ci trésor yi àjjana yi mi ngi noonu la hawla wala quwwata illa billah muttafaqun alayhi zaada nasaiyu la malja'a min allahi illa ilayhi amul fenn fu nit wala bokk la xawla amul lenn loo xam ne nii dana mën a wëlbati wala quwwata wala lenn loo xam ne ak kattan la guy jotale illa billah lu dul ci yàlla muttafaqun alayhi zaada nasaa'i la malja'a min allahi illa ilayhi mooy amul lenn kenn ku mën a làqu ci yàlla lu dul nga dellu ci yàlla moomii mi ngi noonu kon na mbokk jullit xadis bi keroog bi yàlla dogalee ñuy dund ay élection ci xel yépp nekk ci élection yi junjoon nañu xadis bi defoon ko yóbbal ngir ñi fi ñëwoon ala kulli xaal xadis bi la muy firi mooy sunu yonent dafa dajeeg abu musa al ashari mu ne ko mu abu musa xanaa dookaay ma wax la loo xam ne benn denc la kanz mooy denc bu am solo ñu koy wax ab trésor boo bokk ci magasin ci magasin àjjana yi la shakk ni kii yàlla jagleel magasin ci àjjana day wone na ko moom nitu àjjana la nitu àjjana la te it mbokk àjjana nit ñi bu ñu fa duggee seeni daraja du yem borom bi subhanahu wa taala nee na xoolal adduna ni ma ko tëralee kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila nit ñi ni seen daraja wuute ci àdduna àjjana it noonu la mel ku la gën a sell la jaamu yàlla gën la koo bari la moo lay gën a féete kaw kaay ma de tegtal la loo xam ne heure boo ci waxee benn am nga magasin bu lay xaar ci àjjana loolu mi ngi noonu tontu la mooy naam yaa rasulullah yonent bi alei salaam na ko mooy kaddu gi ngay wax la hawla wala quwwata illa billah la hawla mooy kenn mënul wëlba ci dara wala quwwata kenn mënul jotale ci dara illa billah lu dul loolu dafay nekk ci kàttanu yàlla loolu moo tax ba ab julit heure bu ko yàlla nattoo feebar day gëm la xawla wala quwwata illa billah feebar bi kenn mënu koo wëlbati teggi ko ku dul yàlla kenn mënu koo yeggale may ko wér ku dul yàlla la nga xam ne moom lay def kay mooy sabablu moo koy médecin waaye sunu borom yàlla dong moo am kattan ci wéral doomu aadama tey jii ñi ngi tàggee kuñ ne moo jëkk a nekk ministre jigéen ci Sénégal ñu ngi noonu yàlla dogal mi ngi demoon France ci hôpital boo xam ne dañ ko tuddee hôpital américain ci biir France fa la faatoo bu doon te ni am nañ kattan kon du fa faatoo waaye nag laa xawla wala quwwata illa billah yal na yàlla yërëm ko naka noonu it waa ji nga xam ne dafa nekk ci ak ñàkk day gëm ne laa xawla wala quwwata illa billah ñàkk gi kenn mënu koo wëlbati teggi ko ci moom kenn mënu koo may ak xéewal wërsëg lu dul ci yàlla gannaaw ba waa ji nga xam ne dafa nekkoon ci ay tiis ak njàqare day gëm laa xawla wala quwwata illa billah tiis ak njàqare yi ma nekk yàlla rek ko mën a soppi defal ma koo xéewal ak mbégte waa ji nga xam ne nii dafa nekkoon ci ay bakkaar mbokk laa hawla wala quwwata illa billah amul kenn ku mën a toxoo ci bakkaar dem ci li ñuy tudde istiqaama ca mooy sax ci yoonu njub lu dul ci kattanu yàlla loolu mbokk da ngay gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam tënkaloon na ko ibnu abbas ne ko ay sama xale bi déglul ma wax la gis nga mboole mu mbindaa fa ni buñ daje woon bëgg laa jëriñ ci dara mënuñu laa jëriñ lu dul yàlla tuddoon ci yow mboolem mbindaa fan buñ daje woon bëgg laa lor ci dara mënuñu laa lor lu dul yàlla tudd ci yow amul benn nattu bay nekkee kenn mënu koo tege ku dul yàlla amul lenn looy yaakaar ci xéewal kenn mën la koo jox ku dul yàlla lii mbokk lan lay yóbbu ci jullit bi mooy jullit day doyloo yàlla kon ci léppam laa hawla wala quwwata illa billah lépp looy ragal laa hawla wala quwwata illa billah looy yaakaar laa hawla wala quwwata illa billah sa xemmem ak sa xir du jëm lu dul ci yàlla ndax laa hawla wala quwwata illa billah yonente bi alayhi salaam yoonal ko ci ñuy wax ko ñaar fukki yoon ak ñeent bés bu nekk ci suñuy nodd yonent bi alei salaam nee na boo déggee aji nodd ji di nodd waxal li muy wax allahu akbar allahu akbar nga wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga wax su demee ba yegg ci la hawla wala quwa ba yegg ci hayya ala salaa nga ne la hawla wala quwata illa billah hayya ala salaa la hawla wala quwata illa billah hayya ala alfalah la hawla wala quwata illa billah nodd gi kon da nga ci wax ñeenti yoon la hawla wala quwata illa billah waxtu julli juróom yi bu nekk am na nodd fajar am na ñaari nodd muy juróom benni nodd kon jullit bi dëkk ak jàkka di dégg aji noddkat ji yoonal nañ ñaar fukki yoon ak ñeent mu koy wax la hawla wala quwata illa billah noonu it la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoonale booy génn sa kër waxal bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waaye mbokk loolu itamit ànd caag na mu la ko waxee sànq loo bëgg mu teggee ku ci yow baril di wax la hawla wala quwwata illa billah loo yaakaar bëgg caa jot baril di wax la hawla wala quwwata illa billah bu dara xewul it baril di wax la hawla wala quwwata illa billah ci jataay ya nga toog mi ngi noonu ndax heure boo ci waxee benn nekk na ab denc ca denc àllaaxira ya bokk na na sa ilam ca dolli mooy ci luy jur ay magasin ci àjjana mooy la malja min allahi ila ilayhi kenn mënul mucc ci yàlla lu dul xanaa nga dellu ci moom ca mbokk yàlla ay mbugalam amul kenn ku ca mën a muccile ku dul nga làqu ci yàlla moomee moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon wax wa a'uuzu bika minka yàlla maa ngi ñaan mucc ci yow ci làqutu si ci yow ma ne rek xale bi nga xam ne bàyyam da ko bëgg a duma alors mu daw laxasu ci tànkam na ko papa baal ma papa baal ma bokku la kay di daw naan day làqutu ca yeneen côté kon yàlla kenn mënu ko rëcc laa malja min allahi ila ilayhi loolu mi ngi noonu ala kulli xaal kaddu gu mag a ngoog ñu war koo jàng war koo jàngal suñu njaboot ci lépp loo xam ne ñu ngi ci jublu bu dee xadisu ñaareel bi an nu'man ibnu bashir radiallahu anhuma qaal an nabiy sal allahu alayhi wa alihi wa sallam qaal inna duaa inna duaa huwa al ibada ñaan day moom mooy jaamu yàlla na am mbokk julit walahu min xadis anas bi lafz addu'a muxul ibada anas soloo na ko ci ne jaaw ñaan day mooy yuqu mooy yuuru mooy la nga xam ne mooy sërvoob jaamu yàlla walahu min xadisi abi hurayra radiallahu anhu wa rafahu naam laysa shay'un akrama ala allah min addu'a am na beneen riwaaya bu ñu jëlee ci abi hurayra yonente bi alayhi salaam ne amul lu yàlla gën a bëgg jaam bi di ko def ci lu mel ne ñaan na am bokk ah yeneen ci bari sam da ne liy màndargaal jaamu yàlla daal dëgg dëgg dëgg mooy nit ki di ñaan mbokk nit ki bu demee bay ñaan yàlla mi ngi yëg ne man kat maa ngi jëm ci loo xam ne mënuma ko moo tax nga koy ñaan mu ngi noonu yaa ngi jëm ci buur bi nga xam ne mën na lépp yaa ngi jëm ci buur bi nga xam ne xam na lépp yaa ngi jëm ci buur bi nga xam ne mi ngi may gis mi ngi may dégg yaa ngi jëm ci buur bi nga xam ne mooy borom yërmaande ji maye yii yépp aji ñaankat yi da koy dajale looloo tax jamono bi ngay ñaan yaa ngi nekk ci jaamu yàlla gu rëy rëy rëy moo tax yonent bi sam ne na loolu moom mooy ak jaamu yàlla amma hadis bi wax naan moom mooy yuqoog mooy cerveau jaamu yàlla loolu moom borom xam-xam yi ñeneen dañ naan nekkul lu wér waaye bi jëkk ci kaw moom wér na yonent bi alayhi salaatu wasalaam it ci li Abi Hurayra nettali nee na jaam day deful lu yàlla gën a bëgg gis ab jaamam toog di ko ñaan nee na nit deful lu yàlla gën a bëgg mu gis ku ko ñaan ndax yàlla mooy alkarim mi ngi noonu jaam bi koy ñaan da koy bëgg bokk na xadis bi ñu mujjoon a jàng mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addu'a bayna al azani wal iqama la yuraddu ñaan day bi nga ñaan diggante fi ñuy nodde ak fi ñuy liqaami kenn du ko delloo axrajahu nasaayu wa gayru nasaayu solo na ko ak keneen ku dul moom wa saxaxahu ibnu xibbaan wa gayru ibnu xibbaan solo na ko ak keneen ku dul moom mbokk da ngay gis ne bokk na jaamu yàlla yu rëy yu ñu yàlla taftalal ci kaw julli benn jullit réerewul ne li ñuy defal yàlla ci kaw suuf li ci gën a màgg muy julli ci julli googu booy xool lépp ñaan la waaye yàlla boole ci it beneen xéewal boo xam ne lu bari ci nit ñi dañ koy sàggane muy diggante nodd ak liqaam heure bu ñuy nodd yàlla ubbi na buntu asamaan yi su ko defee ngalawaay baril ay ñaan soo déggee aju noddkat àndal ak moom ci li muy wax lépp ba mu des hayya ala salaa hayya ala falaa foofu di ngay wax mooy la hawla wala quwwata illa billah su paree nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ñaan yàlla defal suñu yonent al wasila da ca gën a matale mooy nam ko jàngale allahuma rabba hadihi da'wati tamma wa salati alqa'ima aati muhammadan alwasilata walfadila wabaasu maqaman mahmudan allazi wa'adta waaye loolu boo ko mënul it boo déggee noddukat bi nodd àndal ak moom su paree jullil ci yonent bi su paree nga ne yàlla yàlla na nga may sunu yonent al wasila wasila place bu mag la ci àllaaxira bu yàlla jagleel kenn ci ay jaamam te ki koy def mooy def ramm gu mag ga te mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam léegi nag fi ñu nodde ba baa ñuy liqaam ñaan ya nga fa ñaan yépp yàlla da koy nangu place su nangu ñaan la loolu it moo taxoon ba jullit yi waroon bu ñu déggee noddukat bi lu ñu doon def ñu bàyyi ko daal di jublu ci néegu yàlla ba commencé di jullee ko ñaan ba baa ñuy liqaam loolu di ay ngëneel yu rëy yoo xam ne ñu bàyyi ci xel bu baax ca loolu mooy li jiitu julli ga gannaaw buñ jullee ba pare it xam ngeen ci place su ñaan yi gën a kawe la bokk mi ngi noonu
وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد من أحاديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان
kon mbokku xadis yi ci tege bi ci jëkk mooy xadisu salman radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna rabbakum xayyiyun karim seen borom yàlla dafa am kersa te dafa tedd yastaxyi min abdihi ida rafaa yadayhi ilayhi dana rus ci ab jaamam moos bu yëkkatee ay loxoom jëm ci moom an yaruddahuma sifra mu delloo ñaari loxo yooyee ci neen mu ci zéro axrajahu al arbaa illa annasaa'i wa saxahahu alxaakim mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo saxal ci yàlla ci yàlla lam saxal ci boppam ca mbokk suñu boroom daf ne yonent bi alayhi salaam day yaa ngi rusa wax sa saxaaba yi bu leen dajalooti sama kër rek guddeeg bëccëg du ma am benn féex ak sama njaboot yaa ngi rus ci loolu waaye suñu boroom mu ne wallahu laa yastaxyi min al xaq yàlla moom du rus ci wax dëgg loolu day wane la kon yàlla dina rus ci leneen moom mi nga xam ne moo melal boppam lu ko neex ca it mbokk loolu ngay gëm mooy suñu borom yàlla lépp lu mu saxalul boppam dañ ko koy saxalal mu des nag naka naka moom kenn du ko posé jaam bi bu rusee xam nañ nit nu muy ruse mais yàlla nu muy ruse xamuñu ko waaye daal yàlla neen dana rus dana rus rus suñu borom mu ne mooy ku teg di kayit karim mooy ki nga xam ne kenn du ko ñaan mu koy delloo mi nga noonu mu ne nag yàlla dafa tedd dafa am kersa rus na moos ab jaamam min abdihi ca jaam ba mooy kan mooy jaam bi ko bokkaalewul dara mi ngi noonu suñu borom yàlla bi muy wax cheytaane inna ibadi laysa laka alayhim sultaan mooy jaam yi ko bokkaalewul dara suñu borom bi mu wax ibadu rahman mooy jaam yi ko bokkaaliwul dara amul benn jaam boo xam ne bokkaaliwoo sa borom dara nga yëkkati say loxo jëme ci moom ñaan yàlla ba pare yàlla neenal la ca loolu lañ ciy jëkk a déggee yoonal nañ nit ki di ñaan yëkkati ay loxoom jëme ci yàlla bu dee ñaan yi général yi la gën nga yëkkati ko mu tolloo ak say mbagg kese yonent bi alei salaam nag daan def bu daan ñaan lu mel ne ay taw yëkkati ay loxoom ba mu tiim boppam mi ngi noonu yoonal nañ loolu nga yëkkati say loxo ñaan yàlla suñu borom it nee na du la neenal du la neenal firiwul ni dalay may li nga ko ñaan waaye yàlla gën a xam ab jaamam moo gën a xam la gën ci moom léeg-léeg la ngay ñaan moo gën ci yow yàlla defal la ko waaye suñu borom ne na bari na lu ngeen bëgg fekk baaxul ci yéen tey jii sa doom bi at mi befem am à peine quinze ans nga ne ko loo bëgg mu ne yàlla jëndal ma benn jakarta bu may dawal mooy papa jëndal ma jakarta bu may dawal da naan ko déedéet xaaral ma jëndal la benn ordinateur yaa ngi dégg parce que xam nga ne jakarta bu baaxul ci moom loolu it kon heure bu jullit ñaanee imma yàlla may na ko lim ñaan wala yàlla teggil na ko lor bu naroon a dal ci kawam yàlla musal ko ci wala yàlla jox ko lu gën lim ñaan wala yàlla dencal ko ko ba àllaaxira mu jox ko fay loolu ngir lam ko ko xañoon ci àdduna loolee am na yeneen xadis Omar ibnul Xattaab ne yeneen bi alei salaam ah kon de dañ baril suñuy ñaan mu ne lu ngeen baril ñaan yàlla leen ëppale loolu tax jullit foo toll del ñaan del ñaan rek ñaan gi amul pertement heure boo ñaanee am nga ndax yàlla moom du delloo ñaanu jullit mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu la wax loolu it ñu gis ci ne ba tey doomu aadama bi war nay góorgóorlu di xam ne digganteem ak boromam bu mu ci doxale kenn nee na bépp jaam sama jaam bi nga xam ne dafa yëkkati ay loxoom jëme ci man loolu kon nga yow nga dem am soxla dem ci sëriñub tariyaax wala ku mën a doon di ko wax sa secret pour mu dox sa diggante gan loolu mbokk ay njuumte la jullit da ngay gis borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñu jàngal benn contact direct suñ diggante ak moom nga war koy fàttali sa bopp dix-sept fois par jour ca yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek boo nekkoon sa néeg bu lëndëm di julli da nga naan yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla ñun yow rek la ñuy jaaw yow rek la ñuy dimbali ko ay doo doxal kenn sa diggante ak moom loolu mooy xadis bi jëkk bi xadisu ñaareel bi an omar ibn عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مد يديه في الدعاء moom day bu masaan tàllal ay loxoom ci ñaan lam yarudduhuma daaw ko delloo rek palaasam xatta yamsaxa bihima wajha lu dul mu daa di koy raay ca kanamam ga axrajahu tirmisi wa lahu shawahid ñeel na ko ay xadis yu seeda loolu minha bokk na ci loolee xadisu ibnu abbas radiallahu anhuma inda abi daawud wa majmuuha wa majmuuha suñ dajalee xadis ci root yépp yaqdi annahu xadisun xasan day wane ne lii day xadis la bu baax bu ñu mën a jëfandikoo la na am mbokk nit ki ñaan ba pare raay ci kanamam loolee borom xam-xam yi dañ ko dañ ci am wuute am na ñoo xam ne dañu ne xadis ci root yépp benn wéeru ci loolu tax ñoom duñ ko def am na nag ñoo xam ne comme ni koy borom téere bi génnee nee na xadis ci dañu wérul waaye buñ boolee lépp lépp boole ko dañuy gis dana yegg ci li ñuy tudde martaba xasan nga xam ne mooy xadis bi diggu doomu diggante lu wér ak lu lompañ muy wane ne kon mbir la bu yaatu soo dee ne da nga caa gis ne yow ah da ngay doyloo yëkkati say loxo ñaan rek xam ne ñaan gi am solo loolee xayrul mais boo gisee kuy ñaan di raay ci kanam mit bul jàpp ne dafa def ay bidaa am na ay xadis suñ ko teg xëy na yow dala loolu wérul ci ci moom wér na ci moom mi ngi noonu amma la nga xam ne mooy xadis yu wér luñ gis yonent bi daan raay mooy bu daan tëdd moom daana ëf ci loxoom ya jàng ca qul huwallahu ahad qul uzril falaq qul uzr bin nas raay ci kanamam gannaaw ba raay lu mën ci yaramam def ko ñetti yoon loolu moom xadis yu wér am na ci amma nag xadis yi moom dañ ci juuyoo muy lu yaatu lépp loo ca def xayrun lu ci keneen def it nga xam ne teg na ko ci ay tegtal yu ko doy wallahu subhanahu wa taala aalam amma xadis biñ mu jëjël mooy xadis ibnu mas'ud radiallahu taala anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam inna awla annaasi bi yowma alqiyaama kay gën a yey ci nit ñi ci man yowma alqiyaama day aktaruhum alayya salaata mooy que ëppoon lum julli ci man ci àdduna axrajahu tirmisi wa saxahahu xib ibnu xibbaan bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne yowmal qiyaama ñay gën a bokk ak moom ñay gën a yey ci toog ak moom gën a yey ci ànd ak moom mooy ñaan ñi ëppoon lu ñuy julli ci moom julli ci yonent bi alayhi salaam ci jaamu yàlla yi gën a mag la bokk ndax mooy jaamu yàlla gi suñu borom ne mi ngi koy def moom moo ki malaakaam muy benn ñaareel benn yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dogal na ci kaw suuf ay malaaka malaaka yoo xam ne bu doon tey dañ naan réseau ab réseau boo xam ne nii tey ji foo toll di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam malaaka yooyu daañ ko jottali suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla delloo ko ak ruuxam ci loo xam ne xamuñu nu muy demee ndax dundu barzaq la ñu ngi noonu nit ki dana nelaw ci biir nelaw yi mu wëlbatiku am lu mu wax wala am lu mu def mën a sax fi rendre compte loolu mbir yi yàlla la su ko defee yonent boobu alayhi salaatu wasalaam bu ko yàlla delloo ak ruuxam dana julli ci yow loolu kon julli nga ci moom cinquante fois yonent bi julli na ci yow cinquante fois te mooy yàlla yàlla na nga yërëm Fatou Thiam yàlla yàlla na nga yërëm Samba Sow mi ngi noonu def nga cent yonent bi jul na ci yow cent mille yonent bi jul na ci yow mille lu mu gën a bëri yonent bi gën a julli ci yow loolee nag ñu koy gaaral say julli yowmal qiyaama loolee dafay yokk say daraja day tax nga jege yàlla day tax ëllëg tamit nga bokk ci ñi gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax ba nga la way julit del tàmmal sa bopp benn azkar ca la nga man dee ko def gannaaw julli yi gannaaw fi nga féexee gannaaw bu mu mën a doon ngay bari di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téeméeri yoon deux cent trois cent yaa xam loo man ngay góor góorlu góor góorlu di bari julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina nag foo tuddewu turam wala foo déggee aw turam rawatina guddi aljuma ak bëccëgu aljuma loolu mbokk ay mbir la yoo xam ne dafay gën a feddiliku mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam breski xadis bii ñuy nar a jëlit mu bokk ci xadis yi ñu war a déglu bu baax ngir mën koo jàng mokkal ko niñ mokkale fatiha
وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه البخاري
naam mbokk xadis bi li tax ñu ni nañ ko déglu bu baax rëy ñu jàng ko wa an shadad ibnu aws jële nañ ci sahaabi boobu radiallahu anhu qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi nee na saydul istixfar la nga xam ne mooy sang la gën a baax la gën a mat ci nu ñuy jégguloo an yaquul al abd mooy jaam ba di wax ne allahuma anta rabbi ay yàlla mooy allahuma mooy ay ya allah yow mi yàlla mi ñu jaamu anta rabbi yaay sama boroom laa ilaha illa ant amul kenn ku yeyoo ñu koy jaamu ku dul yow xalaqtani yaa ma bind wa ana abduka man sab jaam la wa ana ala ahdika man day maa ngi ci sab dikk mi ngi noonu wa waadika ak la nga xamee ne al ahd mooy la nga xam ne da nga koo jëflanteeg nit nga war ko koo defal gannaaw ba am lu lu la war amma waad nag mooy li la nit ki dig ne boo defee lii ma fay la mi ngi noonu al al ahd mooy jàmba la mu digganteeg boromam waad mooy dig bay jóge ci yàlla ngir fay ko ca loolee loolu nag maa ngi ci mastataatu sama kémtalaal kattan auzu bika min sharri ma sanaatu maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci ayu la nga xam ne jëf naa ko abu laka bi ni'matika alayya yàlla maa ngi nangu ay reconnaître di saxal ci xiiwal yi nga def ci ci man wa abu laka bi zanbi maa ngi nangu di reconnaître ñeel la bakkaar bi nga xam ne man def naa ko faxfir lii yàlla jéggal ma fa innahu la yaxfiru zunuba ila ant yàlla kenn du jéggale ay bàkkaar xudul yow bokk ñaan gi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy sangu li ñuy jégguloo borom bi jéggulu borom bi bari na astaghfirullah maa ngi jéggulu yàlla rabbi ixfir li yàlla jéggal ma bari na allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ila axiri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk façon li ñuy jéggaloo borom bi bari na astaghfirullah alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayk yooyu yépp bari na waaye yonent bi sam nee ne bi ci gën bi seen sang ñoom ñépp mooy askar bi bi nga xam ne da nga naan yàlla day yaay sama borom ca lool rek saxal la goo xamee ne nii jaam bi ko saxal mën na koo sowe rasul sallallahu alayhi wasallam daana wax ki nekk ci tiis nay wax allah allahu rabbi la ushriku bihi shay'a yàllaay sama borom bokkaale wu ma ko dara loolu rek yaa ngi ñaan yërmande yàlla ci yow di saxal jaam nga yàlla mooy borom ca borom mooy ki bind ki moom kiy taxawee fokk kon mu ànd ak yërmande moo tax borom bi ne alhamdulillah rabbil alamin arrahmani rahim gis nga da nga jël alhamdu ga ak rahmani rahim bi mu siq ar rabb borom boobu subhanahu wa taala ne wala boog yonent bi alayhi salaam ne yàlla kenn yeyoowul ñu koy jaamu ko dul yow te mbokk mi ngi noonu laa ilaha illallah loolu lay firi amul kenn ko yeyoo ñu koy jaamu ko dul yàlla donte ne li ëpp ci doomu aadama yi jaamuwuñu yàlla kese mi ngi noonu nga saxal ne yàlla yaa ma bind naam yàlla yaa ma bind loolu muy lan yow mi saxal yàlla yaa ma bind te yàlla yaa ma may may jëmm ji yaa ma may ay bët may may loxo ki tànk may ma ay nopp may ma xel may ma kattan yaa ma bind te yàlla man sa jaam la ay jaamuma kenn ku dul yow ana abduk man yàlla sa jaam la ana abduk mi ngi noonu borom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañ ne bu dee jigéen a dañ naan ana amatuk man may sa jaam bu jigéen naam am na ca nag ñenn ñoo xam ne dañu ne nga utiliser ni ko yonent bi waxee loolu moo ëpp barke même buy jigéen waxal rek ana abduk ndax da ngay bokk rek min ibadillah as-salihin jaamu yàlla yu baax yi ala kulli xaal lu mu ca wax baax na waxee ana amatuka baax na wala ana abduka baax na wa ana ala ahdik yàlla maa ngi ci sab dig lan la yàlla diggante ak ñun yàlla nee na nañ ko jaamu bañ ko bokkaaleeg dara képp koy bokkaaleeg yàlla nekkatoo ci digg yàlla bi yàlla mën a aqimu salaa taxawal leen julli ku sàgg na julli bokkatoo ci digg yàlla bi yàlla mu ne woor leen aju leen makka waa fonk leen way juri ila axiri loolu yàlla diggante nga ne yàlla maa ngi ci sa sama kemtalal kàttan waaye maa ngi ci yaakaar sa dig yewit sa récompense c'est li nga may fay ci sama kemtalal kàttan te it mbokk doomu aadama bi jaamu yàlla da nga ci sàkku ngërëmal yàlla ak payugu yàlla am na ay yenn suufi yu wax naan yàlla bu dee dama laa jaamu rek ngir dugg aljana wala mucc ci sawara yàlla nag ma tabbal sawara mbokk loolu ñàkk xam la yonent yi ñoo jiituwoon ci jaamu yàlla waaye dañ doon ñaan yàlla musal leen musal leen ci sawara tabbaleen aljana ibrahima alayhi salaam xalilur rahman wajaal nii min warasati jannati naim yaa ngi dégg musal ma mag sama njaboot ñuy dugg sawara ila axiri kon yàlla li nga diggee ci koor ci zakat ci aj ci wéetal yàlla ci lépp day maa nga cee taxaw sama kemtalal kattan mi nga noonu ca loolu it mbokk mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy nga def sa kemtalal kattan soo defee lu bokkul ak sa kemtalal kattan yàlla du ko nangu masalan tey julli suñu borom nee na quumu lillah qanitin taxaw leen ngeen julli waa ji munta taxaw julli lan la ko lislaam wax mooy toogal nga julli mais su dee mën nga toog julli ndax am nga droit tëdd julli dañ naan déedéet defal sa kem teleel kàttan ki mën a taxaw julli ndax am na droit toog julli déedéet am nga kàttanu taxaw taxawal loolee kon maa ngi taxaw ci sa jaamu li ma mën sama kem teleel kàttan la dul sa kàttan nag loolu moom yàlla du la ko toppee gannaaw ba nga ni ay yàlla a'udhu bika min sharri ma sana'tu yàlla maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci ayu li ma jëf mbokk doomu aadama loo def ci lu ban conséquence ba day ñëw ci yow am déet fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara loo def ci lu bon wala nga wax ko ci bon am na conséquence buy dellu si yow lu dul yàlla musal la ci moo tax nga ne yàlla maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci conséquence yi def naa ko ci lu bon mu nga noonu yàlla na nga musal ci loolu ca moom la yeneen ci bàyyi saam daan wax ci xutbaam mooy wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayiaati amalina ñu ngi làqu ci yàlla ngir mucc ci sunu ay bakkan ak sunu jëf yi ñaaw yi nga xam ne jëf nañ ko mi ngi noonu audu bika min sharri ma sanaatu gannaaw ba it mu ne wa abuu laka bi ni'matika alayya yàlla maa ngi reconnaître ci say xéewal yi na ci man lépp lu nekk ci man ci xéewal nangu naa ne yow yàlla kese yaa ko def nangu naa ne yàlla luy xéewal ci man yow kese yaa ko def waaye it wa abuu maa ngi nangu it ba tey ñeel la ci na man def ko tub bàkkaar la maa ngi nangu na tooñ na def ko tub bàkkaar la te loolu mbokk bokk na lu yàlla gën a bëgg jaam bi di ko def mooy reconnaître bakkaar soo reconnaître rek loolee da ngay gis ne dalay jegeel ngërëmal yàlla yàlla reconnaître naa ne def ko te bakkaar la yàlla nag ma baal xam naa ne nag kenn du bale ay bakkaar ku dul yow mi ngi noonu faxfir li laa yaxfiru zunuba illa ant kenn mënumaa baal sumay bakkaar ku dul yow te loolu it mi ngi noonu mbokk yowmal qiyaama adduna ak alaxira yàlla dong mooy musul nit ki ci bakkaar bañ ko ko toppe loolu kon ngalawaay nañ koy jàng bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ni ku ko wax suba yàlla dogal nga dee balaa guddi àjjana nga jëm ku ko wax guddi yàlla dogal nga dee balaa suba àjjana nga jëm loolu war nañ ko bari di ko wax toujours waaye rawatina boo mënoon foo jullee ba pare wax ko loo ca sàggar sàggan foo jullee fajar ba pare wax ko foo jullee timis ba pare wax ko kenn du ko wax ci bëccëg deeyaale ko lu dul àjjana la jëm kenn du ko wax ci guddi deeyaale ko lu dul àjjana la jëm loolee da ngay gis ni dañ ko war a bàyyi xel bu baax mi ngi noonu xëy na yow mi yor enregistrement bi dana yomb ci yow nga mën koy répété répété waat waaye ñu jaaraat ci allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant mi ngi noonu akhrajahu Bukhari
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء رواه النسائي وصححه الحاكم
kon mbokk yi incha allah ci la nga xam ne mooy suñu bind bu mujj bi gis nañu ne xadis yi ci rot mooy wa an ibnu omar radiallahu anhuma qaal lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yada'u haulaai kalimat xiina yumsi yonent bi day heure bu ma saan dugg ci ngoon daawul bàyyi wax kàddu yi wa xiina yusbix heure bu masan xëy daawul bàyyi kàddu yi allahuma inni asaluka al aafiyata fi diini wa duniyaayi ey yàlla maa ngi lay ñaan ak mucc ak jàmm ci sama diine ak sama àdduna wa ahli wa maali ak sama njaboot ak sama alal allahuma ustur awraati ey yàlla suturaalal sama awra lépp luy feeñ ci man ci bëgg mu mu feeñ wa amir rawaati yal na nga dalal la nga xam ne mooy samay tiitaange mi ngi noonu ay tiitaange ki njaqare waxfas nii min bayni yadayya yal na nga ma wattu ci sama kanam mi ngi noonu mooy sama diggantey loxo mooy sama kanam wa min xalfi ak sama gannaaw wa an yamini ak sama ndeyjoor wa an shimali ak sama càmmooñ wa min fawqi ak sama kaw wa a'udhu bi azamatik maa ngi làqu ci sa màggaay an ughtaala min taxti ñu may bettee ca la nga xam ne mooy sama suuf axrajahu an-nasaa'i wa ibn hibbaan wa sahahu al-haakim waaw mbokk hadis yi ibnu omar mu ne yeneen ci bi alayhi salaam heure bu masaan xëy wala heure bu ngoon masaan jot almasa am na borom xam-xam yi jàpp ne mi ngi commencé gannaaw takkusaan am na ñuy commencé jàpp ne dafay nekk gannaaw bi jant bi sooy waaye bokk na lu gën a mattali mooy fi takkusaan jotee jëm kaw yépp dañ koy tudde soir muy masa kon rasul sallallahu alayhi wasallam daana bokk boole ci azkaaram mooy kaddu yi daw ko bàyyi bi njëkk mooy yàlla yàlla nga may aafiya aafiya mooy yàlla muccal la dàqal la lépp luy danger lépp luy loraate ci sa wàllu diine te xam leen natt bi gën a rëy ci doomu aadama bi mooy natt bu dal ci diineem yàlla yàlla musal ñu ci nattu diine mooy farata boo war a def defoo ko wala bakkaar buñ la tere nga def ko ñaar yépp nattu la ci diine boo bàyyee farata wala nga def bakkaar am nga nattu ci diine waaye gannaaw ba it sama adduna adduna mooy ak dund moom daa ëmb lépp doonte ne ci loolu lay détaillé bokk na ci adduna jooje sa njaboot yàlla yàlla nga may jàmm sama njaboot te xam nga ne soo nekkee ci jàmm ca sa njaboot nekkee ci jàmm it loolu du am day am problème moo taxu la fi naan yàlla nañu yàlla may wér ak wér li mi nga noonu boo nekkee ci jàmm fokk njaboot gi nekk ci jàmm pour nga mën a am jàmm gannaaw ba sama alal yàlla may ma aafiye ci sama alal sàmmal ma ko gannaaw bi ay yàlla yàlla na nga suturaal sama awra suturaal sa awra awra la ca jiitu mooy awra bi la yàlla bindee doomu aadama kenn bëggul ko gis sa awra ba da ngay gis tey ab sàcc mën nañ ko téye fii du ko dóor suba ba ngoon moo ko gënal ñu def ko yaramu leen gannaaw bi it awra bokk na ci am loo xam ne nii bu ko nit ñi xamee ci yow xeebe la ci nga def loo xamee ne nii nit ñi yàlla suturaal na la te bu ko nit ñi xamoon daañu la ca xeebe ca mooy kon yàlla yàlla nag ma suturaal ba sama lenn di bañ a feeñ te loolu it da ngay gis ne yonente bi alei salatu wasalaam daana wax ne sama jaam yi lu ñu def wala boog yàlla nee na sama jaam yëpp dinaa leen baal ba mu des ñiy siiwal seeni bakkaar waaye la nga xam ne daa yem sa digganteeg sa boroom loola yow mën a yàlla baal la ko bu ci seytaane jaare na la ah dégg nga lu yem sa digganteeg sa borom waaye wallahi daa yàggul amul looy def ci secret di def ci secret ñaar ñett lu dul dana génn nit ñi xam ko kon yàlla yàlla nga suturaal suñu awra gannaaw ba it yàlla lépp lu may tiit yàlla nag ma ci may ak dal ma mucc ci xam adama da ngay tiit wàllu feebar la wàllu ñàkk la dañ may dàq sama service damay am fitnay guerre la fitnay lu mu doon lépp loo xam ne tiit nañ ko yàlla yàlla nag ñu ci may ak dal ban mucc ci ñu ngi sant yàlla élection yi amoon nañ ci ak tiit yàlla teggil nañu ko yàlla nañu yàlla boole ci ña koy sant ñu ngi noonu gannaaw ba mu ne yàlla yàlla nag ma defal la nga xamee ne nii ak waxtu la ci sama kanam ci sama gannaaw sama ndeyjoor sama càmmooñ ak sama kaw yépp ca mbokk seytaane waxoon na yàlla sa jaam yi dinaa leen dikke ci kanam ci gannaaw ndeyjoor càmmooñ la ëpp ci ñoom duñ la sant nga ne yàlla yàlla nag ma wat ba dara du ma jóge fenn ci samay li ma wër waaye it rawatina lu may bette sama kanam sama suuf mi ngi noonu lii jóge ci suuf mën na nekk tremblement de terre lii jóge ci suuf mën na nekk jaan ju la mat lii jóge ci suuf mën na nekk ay miin yoo jéggi doomu aadama yu bari la leen rey ci seen suuf la jóge kon yàlla yàlla nag ma musal ci lépp lu may bettee bépp mbugal bu may bettee al ixtaana mooy bette na ko ak mbugal jógal jële ko ci suuf mi ngi noonu loolu mbokki di ñaan goo xam ne sens bi nga la waay jàpp ko di ko wax ci arab boo ko mënee boo ko mënul wax ko ci pulaar njaago séréer lu mu mën a doon ca ñaan gi mooy lan yàlla maa ngi lay ñaan jàmm ci sama diine ak sama àdduna di la ñaan jàmm sama njaboot ak sama alal yàlla yàlla na nga sutural sama awra ca dalal saak tiitaange wattu ma sama kanam sama gannaaw sama ndeyjoor sama càmmooñ ak sama kaw maa ngi làqu ci sa kattan ci ñu may lenn lépp lu may bettee ci sama suuf lii mbokk nga koy ñaan suba di ko ñaan ngoon bu dee xadis bi ci topp an ibnu umar radiallahu anhuma qaal kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul allahuma inni auzu bika min zawali nicmatik ey yàlla maa ngi làqu ci yow ci muy teggee ko xéewal gi nga xéewal ci man wa taxawulu aafiyatik maa ngi làqu ci yow muy wëlbati ko jàmm gi nga ma jàmmal wa fujaati niqmatik maa ngi làqu ci yow ci mu may bett mbugal bi bawoo ci yow wa jamii saxatik maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci lépp loo xam ne mer la muy bawoo ci yow mbokk da ngay gis ne lii ci ñaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na ko ñaan te it ñaan ko ci làkk ba nga xam mi ngi noonu yàlla yàlla nag ma musal ci xéewal yi nga def ci man di teggeeku yàlla yàlla nag ma musal ci jàmm ji nga ma jàmmal di wëlbatiku muy nekk ay yàlla yàlla nag ma musal ci bett goo xam ne sa mbugal daf ma koy bette yàlla maa ngi làqu ci yow ngir mucc ci bépp mer buy jóge ci yow di ñëw ci ñun mbokk xadis bi ñu mujj a jàng te muy suñ dernier xadis an abdullah ibn umar radiallahu anhuma qala qala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam allahuma inni auzu bika min galabati dayn yonent bi daana ñaan e yàlla yàlla nag ma musal ci bor yu ñuy not wa galabati al adu yàlla nag ñu musal ci noon yu ñuy not wa shamatati al aada yàlla nag ñu musal ci suñu noon yu ñuy reetaan rawahu nasai wa sahahahu al hakim mbokk ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon na ci yàlla musal ko ci bor bu koy not waxul yàlla nañ yàlla musal ci bor ndax jullit fokk muy am bor moom ci boppam bi muy faatu mi ngi bàyyi bor bu mu jëloon ci benn yahut mais ndax bor bu ko not la déedéet ndax lam joxoon yahut ba comme garantie di mbubb bi muy sol pour xeex mu ëpp bor ba kon loolu mooy bor bor yi nga xam ne daf lay topp nga dem ba lott mënatoo ko fay di tu loolu la doon wax yàlla yàlla na nga ma ci musal waaye bor boo xam ne ni mën nga koo fay loolee taxul ñuy wax donte ne ne nit ki war naa moytu di dugg ci yenn bor yi rawatina sunu mbokki intellectuel yi nga xam ne dañuy bëgg jikkanteeg àdduna nekk ndaw doog a jóg rek jàpp ne man fokk ma war a oto fokk ma am sama kër bopp fokk ma nangam nangam dem gàddu ay bor yu dul jeex déedéet loolu bor yooyu mën na laa not boo ñàkkoon sa liggéey rek wala yonsu billah musiba dal la ala kulli xaal mi ngi noonu gannaaw ba it yàlla noon munta ñàkk waaye yàlla nag ñu musal suñuy noon dañu not ñu musal suñuy noon dañu not gannaaw ba it yàlla nag ñu musal suñuy noon di ñu reetaan mi ngi noonu doomu aadama lay tax ay noonam di ko reetaan loolu musiba la yaa ngi dégg yàlla nag ñu musal ci lépp loo xam ne bu ko suñu noon yéegee reetaan ñu ca lii mbokk da ngay gis ne kon mooy li yàlla dogaloon ñu war koo jël ci ay askar yonent boobu yàllaa ko xelaloon nu mu ko doon ñaane lépp lu mu ñaanoon yàlla yàlla na yàlla defal ñu ko lépp lu mu musul woon ci yàlla yàlla na yàlla musul ñu ci defal ñu ko àdduna ak alaaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw mu ne mbokk bi dafay laaj ki nga xam ne bi ñuy nodd moom dafa nekkoon foo xam ne mënul wuyu aji nodd ji bi waa ji nodd yaa ngi nekk di naafila bi waa ji nodd yaa ngi ci biir douche ba na am mbokk heure boo paree ci loolu da ngay reprendre la nga xam ne mooy azkar yi nga waroon a def allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah wax la hawla wala quwwata illa billah répété nodd gi na nga ko waroon a toppee gannaaw ba nga ñaan ñaan ya nga xam ne moo tegu ci loolu loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam asalaam ndax ni ndax dagan na waaw waaw ndax dagan na nit ki julli fara te barañ yëkkatay loxoom naam loolu dagan na la ca borom xam-xam yi di sib rek mooy nga saxal ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ñu woon fu mu jullee fara te pare yëkkatay loxoom ñaan waaye nit ki nga xam ne da koy def léeg-léeg loolee da ngay gis ne dara nekku ci lu ñu yoonoon la ci yëkkatee loxo ñaan doonte ne ne comme na ma la ko waxee bu saxul daal amuñu lenn luñ cay bañ wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam déedéet ci loxo yi ngay jàng dañ na naan ëpp loxoom jàng ci biir loxo yi ci biir loxo yi ngay jàng raay gannaaw ba mu def ko ñetti yoon naam naam ndax bu dee da nga am loo sol ala kulli xaal même boo amee loo sol boo loxo yi jaaree ci kaw yaram bi même bu nekkee ci gannaaw xaa'il bi loolu da ngay gis ne dara ne ko ci maadaama jaamu yàlla gi rek mooy rombale loxo yi ndax loolee du question loxo yi moo lay aar waaye barkeb ñaan nga ak dëppoog yonente bi alayhi salatu wasalam moo tax kon dara ne ko ci raay ko ci gannaaw la nga sol wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw ndax mbooloo mi
ñaan bi ñu koy ñaanal waaw est-ce que yem naa yem bi mbooloo yoo xam ne boo xaaree comme ni ñu koy wax waaw ala kulli xaal yal na yàlla yërëm ko yërëm bépp jullit waaye dafa am ñaan yi dafa am ñaari façon ñaan yu bokkul jullit bu faatoo dafa am ñaanuk farata bu yàlla gàllu jullit ñi tudde ko fardul kifaaya ab chinois ñëw na dee fii du fi mbokk kenn waaye ñun xam nañ jullit la daganul ci jullit ñuy dem suul ko ci jullee wuñ ko julli googu nga xam ne mooy julli farata la yonente bi alei salatu wasalaam ne bu ca bokkee ñeen fukki nit ñu bokkaalewul yàlla dara ñu ñaan yàlla yàlla dana ko nangu kon loolu mooy ñaan gi gën a foor ci ñaan yi am maa nag yeneen ñaan buñ ko mën a ñaanale feneen ba baa ñuy dajeeg moom yàlla mën na ko nangu waaye nag quand même du yem ak loolu mi ngi mel ni rek julli farata gi ñu nar a def benn julli farata kenn du ko méngaleeg junni rakka naafila ndax farata farata la naafila naafila la kon salaatul janaasa farata la muy fardul kifaaya kenn du ko yemoleeg ay yeneen ñaan gannaaw loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
ñaan bi ngeen ñaan raay ndax yow kes soo ko defee di day njaboot yi wala il faut nga defal ko ala kulli xaal bépp ñaan boo xam ne dañ koy ñaan di ko di ko raay loolee dañ koy ñaan pour yow al lu dul ne xale yi mënu la jàng xale bu mënta jàng moom dara nekkul nga ñaanal ko raayal ko mi ngi noonu gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba feebaram bi nog ko suñu ay Aysa nee na dama doon jël ay loxoom jàng ci loolu mu daan jàng moom gannaaw ba raay ay loxoom lan la ca teg damaa xam ne loxo yonent bi moo gën a barkeel samay loxo loolu kon yow it boo amee njaboot xale yi mënul loo jàng loolu dara nekkul nga jàngal ko raayal ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam ah damay laaj bu dee da ngay jàpp ci wanag fan ngay waxee bismillah
bu dee na ngay jàpp ci wanag fi ngay dugg ci wanag bi ngay wax bismillah booy dugg ci wanag da ngay wax bismillah booy wa jàpp da ngay wax bismillah mais bismillah boobu nga xam ne moom nga mujj a wax loolee da ngay gis ne dana yóbbaale sa azkaaru dugg wanag dana yóbbaale azkaaru njàpp ba nga xam ne moom ngay jàpp mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah ndax dama doon laaj rek ci wàllu ñaan bi naam dañuy wax xale yi nga xam ne mënuñu ñaan ñu takkal ba fa benn mbokk bu ko doon wax daal ndax mu ne mu ne leen takkal yenn alxuraan yi ndax loolu mu tàgg na war na mën a nekk mën a dindaal
wal wala kulli xaal bokk na ci benn sahaaba bu ñuy wax Umar ibn al-As ñu ne déggoon na yonent bi alayhi salaam ñaan benn ñaan mooy a'uuzu bi kalimaati taammaati min ghadabihi wa iqaabihi wa min sharri ibaadihi ila axiri mooy ñaan bi nga xam ne dafa bokk ci azkaaru nawm nee na moom daw na ko jàngal doomam yi mën a jàng doomam yi munta la jàng mu bindal leen ko takkal leen ko loolee ñay tegtaloo ci ne askar mënees na koo takk ci hadis yi li ñuy jëfandikoo waaye nag bu ñu xoolee ñeneen ñi nga xam ne gisuñu loolu ñoom dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njàngileem yépp gisuñu ci fenn fu mu ne bindal takk loolee kon ñoom duñ ko def loolu kon boo gisee ku koy def xëyrun foofu la ko teg waaye daal bokkoon na la gën a mucc ayib mooy xale yi ñu jàngal leen ñuy ñaanal suñu bopp seen bopp wala ñu ñaanal leen amma takkal leen loo xam ne nii da leen di aar loolee moom nekkul la gën ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw kon waaw xam naa ngeen baal ma rek ñu mujjee ci ñaar ñi yëkkatindoo parce que dafa guddi naam bismillah waaw waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ndax ñaan bi waa islam yi mu faatoo ba ko mu tayal woon yëreem boobu ndax yëre nañ duñ njabootam la wala
waaw dañ ne bi muy bi muy faatu fekk ne mi ngi lépp benn juif la nga xam ne mooy saako pepp bu muy dund leen njabootam sallallahu alayhi wa sallam fekk mbubbam mi nga fële ca la chaque année lu gën a yéeme loolu sax am na sunna nettali nañ ne yonent bi daan nañ toog këram lu jege ñaari weer yoo xam ne cin du fa tàkk daaw ñu lekk lu dul tàndarma ak ndox mi ngi noonu kon loolu ca la leboon juif bi jox ko mbubam mi ngi noonu te yaakaar naa ne ab julit lu mu sant sant caam bu yonent bi ñëwee naan ko lebal ma ma loolu du ko lebal da koy may comme nag moom buggul woon aussi ci yenn charge yi digganteem ak julit ñi alors moo tax mu dem ci juif ba jox ko mbubbam leb ko la nga xam ne mooy pepp bu mu dund la njabootam sallallahu alayhi wa sallam loolu it misaal la boo xam ne yal na yàlla jéggal suñu mbokk bay laa ji Fajur Gueye daana wax ne loo ko gën a xam gën a xeeb ñi jàpp ne ñoo ko remplacé tey ñii da ngay gis ay nit ñu ne yow kii nitu yàlla la nga jël ay milliards denc ci banque bi te nit ñaa ngi ni bu ñu añee du ñu reer loolu lu doy waar la am déet waxuma démb waxuma barke démb tey mag Bilal Thiam fi ñu toog jataay bi ñu toogoon rek am na ko fay nettali benn sëriñ ci Sénégal bi mu dee kontaan 3 milliards lañ ca fekk te bokkul ci mag ñi bokk loolu xam nga loolu loolu sëriñ ah mi ngi daa waaw bu doon yaa ko liggéey moom laa la wax waaw loolu ala kulli xaal a rasul sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon l'exemple suprême ci léppam moom la Victor Hugo doon tagg ci ni mooy benn buur bu ñu xam ci àdduna moom njabootam ñuy fande amuñu lu ñu lekk ca nga jiite royaume àdduna musul am ko mel ne moom sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu mujj ci mbokk bi doon yëkkati rek bismillah waaw waaw bismillah ci biir julli gi wala kulli xaal day loolu ñu def day dañ ne yàqul seen julli waaye waruñu koon def kuy julli dégg imam di tari ba dégg nga dégg mu ne muhammad rasulullah wala ismuhu ahmad wala loolu doo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo julli woon ci moom yàqul julli gi waaye boo xamee moom waroo julli ci moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daawul tari alquran ay sahabam di julli ci moom ci biir julli gi mi ngi noonu mbokk jullit wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain